Basir ah waaw kii do <laughs> ay jégalu <laughs> ah na ngeen def na ngeen def waay géy géy géy Sarr Sarr Sarr jàmm def na ngeen def ak maa ngi jégalu de Sarr ah waaw maa ngi jégalu maa ngi jégalu amul solo amul solo wax dëgg yàlla de waroon naa ñëw ba plateau sax wax ak yow amul solo parce que lii xew moom neexuma te xam nga ni yow nit ku baax nga kenn musul ñëw sa place bi dafa indi ay attroupement. wallaay wallaay affaire bi métti woon na ma trop. man man kay affaire bi moom. waaw surprise bu métti laa ci am man daal. Mhm. xam nga mbaay indi woon na ma ba fii. waaw waaye pour man ay kiiwu falaa falaa mais bi histoire bi commencé tàng noon ma gis la nga ñëw. Mhm. nga jël mbaay jël yoru yóbbu leen. Mhm. laa ne lii nii nag ah. Uh-huh. sérieux ah, loo ci xamul. waaw mbaay moomu sama kër la ne sama jarbaat la. ayoo sama jarbaat la lekk. wuy yéega yaayam sama jigéen la yoro moomu ngay gis tamit waaw moom it kër ga la daal xam nga ñun suñ dëkk njuqu baa la wax nga dëgg kay foofu lañ jóge ñëw fii ooy ay waay tey tey dama defe ni tremblement de terre moom wala volcan mbay waaw ñëw nga ñëw naa da génnoon dama doon fàttali wallaay fii sedd na tey mbay ngelaw na tey kay comme Walka ngelaw na ngelaw na Walka wala tremblement de terre. <laughs> yéen mooy kale bi ci jàmm kay alhamdulilah ah jàmm rek kay jàmm waaw xam nga kii bi da ngay xat daaw koor gi da am yaram. waaw dafa maa nga hmm. waxat. Eh, eh, boo dégguloo olof da ngay laajte ñu expliqué la. koor nit day jeex dafa faaj loolu la ñuy wax jeeg faaj. waxuma la xamulee nga laaj. ñu wax la yow laajuma la faaj la yére bi moo ko jotatul kii koor takku ko yàlla moo ko nakkaa. laajuma xam yow. Eh, yaa yaay boy. mbaay wut naa fii yëpp. dëgg la kay wuy ma. sa ah. fait location del sol lu jot. koor lañu nekk te sa borom kër rek nga am droit toogal def lii nga def te bët dafa miis del sol lu baax waaye. ñoom nag ñu ne woon reen. dañuy ñëw fii woor see ak man. waa njuxu ngeen kay waa njuxu njuxu ngeen. waa njuxu balla kon ka kon de kon kon de garaabi. réeroo am na kon. Ah, ndax man su ma xamoon ni mbaay. waaw sa jarbaat la. kon mbaay du ñëw sama place premier jour koor ba léegi. man maa koy jaay ndékki. nga ne waaw waaw. jour koor ba léegi man maa koy jaay ndékki su xamoon nag sa jarbaat la duma ko jaay ndékki ndax loolu erreur la waaye nag comme que moom mag la bu ñëwee. njëgu 1000 francs mom lay commander dina ko defal sax ba defal ko njëgu 1300. waaw mais suma xamone ni sa jarbat la. Mhm. duma ko mës a jaay ndékki mhm. ndax yow ci koñ bi nga nek di def lu bax kenn musula xam ci ben erreur doxo ci lu ñak fayda ben yoon waaw yow mom yow mom yow mom fi mom ci koñ bi mom but ba but mention spéciale jërëjëf mention spéciale waaye nak Cheikh Bassir waaw maa ngi jéggalu nag bon ta dama wor a ah. xam nga cër but loo xool bët dee xool waaye du gis xel mooy gis bët mun na xool eh. fekk sori non dama lay expliquer non man xam nga dama bët man bët mun na xool fekk ci kaw la xool xel mooy dugg am na ñoo xam ne mën nañ lekool ñu summi la ba nga set def la taat neen ci seen bët ñooñu ñooy wax gaari wax yooyu ay del xool li ngay sol ndax seen bëti day gaaw fukki waate comprendre nga ma débat bi maa ko kii de yëre xam nga bi ma toogee ngi toog dégg nga fi ku la wax sa wala mëccal ween kenn waxu la ko de yow yow ah, yow ah. nga léegi de kooka la yaa ko ma waxee loolu ma la man wóoruma boo ma waxee ne asafurlaa damaa wóor doon boo ma waxee da ngaa réew ma nokk la ah, xaaral ma wax ak moom ba dama ne waaw tey damaa woor te sax bu ma neexee li tax ma la damaa woor damay bañ ñu yab ma ci ñàkk a woor gi moo tax ma résistance ne damaa woor. déet Mbaye. non damaa woor. ah woor yow mii. waaw ah Mbaye boo mënul tey ngaa lekk rek moo gën. non damaa woor am na loo xamante ni du ma ko waxee sax dañ may yab. waaw waaye da feebar te jaam pexem yàlla ak dogalam. yow bul wax damaa feebar damaa damaa xëy ñi ñoon lu woon. waaw mais kaay lekk wala ma toggal la leneen dama wor xam nga am na ñoom tin tax nit di ma ceeb te yaa ngi wax naan ma kama togal la bo ma forcé forcé ba ma ne na ay responsable bakar bi yakoy yam ah déet bayil dama wor nga ne ma dama lay togal bo ma togal bo ma lekke ni ya jël responsabilité bi bu la nexé tam nga gadu responsabilité bi bu la nexé lolu mom dina ma xaw a histoire amna ñu rew ño xamanteni ni bu ma wor sax mënuñ ko mëna xam ta dama wor nak sa biir wax dafa am lu ma ci jaaxal. waaw da nga ne ma weeru koor bi ñuy tàmbalee ba léegi yaa ngi koy jaay ndékki man ma yaakaar ni euh, euh, la amoon foofu loolu bu bés boobu la rek bés boobu rek la wooru déedéet mi ngi fa doon ñëw ah mi ngi fa waaw léeg-léeg sax affaire yi tardé ah. su ma ñëwee ci kër gi di ko xool mu ànd ak man dem ah kon yow yaa ñëw ci kër gi waaw di ko xool di ko xool si kay mais yow mosuma laa gis ci kër waa day fekk ma génn wala ma liggéey wala ma nekk ci yenn activités yi. dëgg la kay xam nga ndakaaru moom toog moom yombatul daal. dëgg la dëgg la wallaay mais nag kontaan maa ngi ciy jégalu nag bu baax a baax baax maa jërëjëf. jërëjëf jërëjëf waaw yàq naa sa yoon nag téye naa la jërëjëf baax na baax na jërëjëf garaawul jërëjëf waay. bi di lekk ceeb bu boo bëggee noppalikoo boo bëggee noppalikoo da nga bëgg noppalikoo waxal li mu demee rek bëgg noppalikoo waxal li mu demee rek waaye nga <laughs> fan la dëj bi am ana dee lii ceebu dëj la mbaay lii ko toog yàlla nga dee am naa fi ay <laughs> ma dem fee ci sama couloir bi tëdd waay dama sonn waay man ceebu dëju gi ci lekk mënuma toog ak ku réew damay dam yaa ma gën a dá nga mel ni ko buyoo te lépp sama caabi yi doon dagg fii ku ko jël eh dangaa jël caabi ah ay fen wóorul ah? eh? ay me ma ne ndax dangaa jël caabi sama caabi yi ku ko jël yow fii dangaa moom caabi caabi bi ñun ñaar ñoo ko composé jox ko caabi ji yoro boo yoree ñoo composé jox ko sama caabi ji caabi bi mi ngi ci suuf kii bi. Eh, kii nokk maa jox caabi ji waa yow. ba ma waxee nokk maa jox caabi ma nokk léegi. nokk maa jox caabi ji. yow da ngay xaar da ngaa bëgg dem kër da ngaa bëgg dem kër Paa yi. oh. <laughs> Kabi Touba. <laughs> Kabi Ndiare. na ma jox jox caabi ji yow jugal jox ko caabi ji nag yow tamit. Eh, Kabi Touba eh, nokk maa jox caabi ji ana caabi ji. Kabi Ndiare dama jox caabi ji. waaw xaaral yow jugal. yow doo ma caabi ji. eh eh eh puusal damay toog. mu ne. ma ni nga puus damay toog laa war. gi yaatu na fi nga war a toog bari na. boobal la. kër gi yaana. coussin bii la ñu teg fii pour ku ñëw toog. damay toog sa kaw eh, di ñaata ñoo ne. damay toog sa kaw di. xam nga yow ay coow nga bëgg. xam nga ay coow nga bëgg ñaata coussin moo am ci kër gi mu naan ma puusal damay toog yow bu fekkee buntu bu lu fer rek nga ubbi fe. ma yow yow da ngaa bëgg histoire wilaay histoire nga bëgg yow loo bëgg xam nga li nga bëgg dinaa ci dem ak yow. Poussé damay toog ngay mel ni. ku toogal fee wala nga toog fële wala nga toog fii kër gi yaa na. waaw bëgg histoire franchement da ngaa bëgg yow nitu saytaane dëgg nga wallaay nitu valeur doo valeur sax yow ab doo amoo benn valeur si ci doom ñuy toog fii fii yaa yow yi da nga affaire fayda yi moo nekk lan. toogal fii toogal fii. dëjul fii wala nga dëju fee. yow léegi deux places yow ngay toog. yow looy bëgg a man. lu tax deux places ngay toog kan moo bëgg dend ak yow. fii toog yaa bëgg a dend ak man lan la. ah xam nga yow. te du ñamoon saytaane nga. ñamoon nga ay ñamoon nga tabal toog fële. ñamoon nga te du ñamoon nga. moom day mel ni ku sax dem douze nii. ma defee nii di nga toog. léegi demal douze da ngaa ñàkk a fayde quoi. yow da nga yow billaay wallaay nitu histoire dëgg nitu jahannama dëgg nga yow. xam nga yaa ngi may commencé waa di ma nitu safara nitu fitna nga yow lan la. bi du ma du ma du du ma dugg. fekk yow ku ee yow ku am jàmm nga bëgg. waaw léegi yow bëggoo jàmm laaj leen léegi ku wóorul fu muy dem. a àjjana wala safara. yow xanaa aaya boobu rek nga jàng. déedéet daa ki dul julli nag. dama def dañ ma jàngaloon aaya boobu. waaw ki dul julli nag. ma ni. na ah. nañu wax ci ku wóoru. Ah, ba pare yow yow yow daal xam nga li yow xam nga nitu fitna yow bëggoo am jàmm man dama am jàmm bay ses nga ñëw yàqal ma ko ndax yi ñàkk fay day. da nga añ ba pare. Hmm? franchement rëccu naa nu ma fi doon ñëwee. franchement nag wallaay rëccu naa nu ma doon di départ nduqu balle di ñëw fii ndax man. yow da nga maa topp. ku ma siibal singili ma. kan yow fii du sa kër bokk. ku la topp yow bokk kii. man la gën a bokkal a ma ah maman mi man la gën a bokkal. kan la topp yow yow da ma maman mu maman mu mooy nampaw jox sama yaay. yow pël nga. waaw. man séeréer la waaw maman séeréer la. maman pël la. lu maman doon doon pël maman pël yaa ngi may tooñ bàyyi tooñ dañ ñëw àtte ba ñu fi yow yow li ngay def nii yëfi saytaane la ndax yow dañ ñoo àtte fii ba ku ci nekk nekk sa coin chaque jour nga may déstabiliser di ma sonal di ma gëtam yaa ma toog bàyyi boo indi woon gànjaa ma tox ko pour wax na ne maa la gën a am fit yow aw yow amoo sañ sax sañ sañ sax yow. Hmm. indil gànjaa waa kër gi yëgu indil gànjaa waa kër gi yëgu guñ ko de. man waa kër gi nanga man lu may def damay assimilé. yow yaay laqatu. waa kër gi yëgu guñ ko de moom mu yëg ne ko. di yëddu ay da ngay mos. di yëddu ay jigéen. kan muy sangu borom kër ngay sangu. ay yëngu dégg dama doon dem duus. muy sangu ñu daje. waxoo man maa amul portable bu mën a manipuler mais billaay walaay ma ko amoon daaj la ko yow jox la preuve waaw sama film bi sax yow bañ may la ko man du ma wayaan portable dama ko liggéey iPhone la topp ami ami ami xaw ma nan ami fan xaw ami mbaañ dimbali ma ami mbaañ dimbali ma portable ami mbaañ ñàkk fayda da ngaa ñàkk sa col mo jeeg rek ami def ma col ñu ko bal la gis ni man ma nekk fofu nit ku sérieux mu yónnee ma lila metti tamit octeur bi li ma koy des sama nopp amuloo téléphone mo la metti yow bo yoré portable bu baax bo am wëlër te nitu wëlër boo ko dégg sa yére wëleerewul amul sens man tey jii yoruma portable am wëleere sama yére yi sama culture wëleere na yow sa yére 1945 baax na yow amoo yow wëleerewu sa sa yére wëleerewu booy laay sol lii li nga def sa nopp yi teg booy laay sol xale yu ndaw yi ñoo koy def te puis bu mu mel ni ma kat sa kon ku tëx non dama lay wax bu wax bi bëree ma ma ma def lu bàyyi saaga saaga du dellu ci yow lay jëmaat waaw saaga baax waaw bu wax bi dépassé quoi. non xam nga ku sa jeex saaga rek ngay def ak bëgg a xeex. koo fekk muy jëw. waaw parce que kii damaa xam ni déedéet dama laa daaj. ñam dama laa daaj wëleeroo sa yére wëleeroo amoo culture générale. kan yow waxoo dégg nañu dem. un fois un.